mu nekkoon ndaw soo xam ne ci jamonoom ci ndawam caaxaankat la woon fokkat la woon waaye keroog bu dëgg leeree ci jëmmam ci kanamam jàpp na ci daal di ci ngoy màtt ko ak ay dëgëyam xale bu jigéen boobu tey incha allah ci kàttanu yàlla moom lañ fas yéene teg seen kanam ngeen seetaan ko seetaanu kuy jëriñu seetaanu xel seetaanu kuy dégg koo xamante ne day gis daal di jël ñu bañ ko seetaan rek comme ni ñuy seetaane yeneen film yi nga xam ne filmu tubaab la yaakaar ne ay léeb la ak lëppoon kii dëgg la woon dund la boo xamante ne xale bu jigéen bi di Rabia dund na ko fii mooy deuxième capitale bi te mooy Basra euh, ndaw si judd ci famille boo xam ne ñeenti xale yu jigéen lañ Rabiatul Adawiya ci kër goo xam ne kërug alxuraan la seen baay nekk góorug alxuraan seen yaay nekk jigéenu diine seen papa ngi nii papa ji ku gëm yàlla la woon ku am imaan ku am lislaam gëmoon yàlla bëgg alxuraan bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu sax moo taxoon mu daal di ut jàngalekat indi ko ci kër gi muy jàngal xale yu jigéen yi pour ñu wàcc alxuraan loolu yóbbu woon na ko ba nga xam ne xale yi ku ci tariwul dalay pine nga fanaanoo jàng ba set ndax góor gi bëgg gi mu bëgg alquranul karim te xam ngeen ne loolu moo war ab julit mooy nga bëgg alquran ndax alquran mooy wax yàlla alquran mooy leeral sa dund alquran téere la boo xam ne yàlla nee na kitaabun anzalnaahu li tuxriji naas min azulumaati ila nuur téere la boo xam ne maa ko wàcce pour mu génn nit ñi ci lëndëm yóbbu leen ci leer nee na rabia guddi gu nekk daanañ ko taalal mat muy muraajaa muy réviser li nga xam ne moom la passé woon ci ay saar waaye sax nag su mokkalul woon daanañ ko pine taalal ko ay mat mu fanaanee jàng ba bët set ngir alxuraan bi sax ci xolam sax ci dënnam waaye ci mbetteel ndeysaan góor googu nga xam ne mooy góorug alxuraan góor gu bëgg diine mu daal di génn àdduna xam ngeen ne kër bu fa borom kër gi teelee génn àdduna njaboot gi day tasaaroo waaye lu yéeme mooy ñuy jooy noppeeguñu ci ñaareelu bés ba yaay ji it daal di génn àdduna muy kon njaboot googu ñu gaaw a tumaranke ndax bërëm kër gi ak soxnaam génn nañ àdduna ñu bàyyi ñeenti xale yu jigéen di seen ginnaaw te bàyyiwu leen teguñu leen ci yenn loxo yoo xamante ne loxo diine la yaay jaa ngi nii tey moom it ñuy jooy dëj bu bees papa ji mu génn àdduna yaay ji daal ciy tegu léegi lan moo xew mooy ñu daal di séddoo xale yi kenn ku nekk nga daal di jël kenn Rabia nag yàlla daal di koy nattu kii ngeen gis seen kanam muy raay bopp Rabia mooy tàntaam moom moo ko jël yóbbu ko waaye soxna si amul woon diine te xam ngeen ne nit ko amul diine bu yaree doomu aadama doomu aadama boobu du am diine moo tax yal nañu yàlla may ñi ñu yar am diine Rabia ngi ni màgg lan lañ ko yar mooy ci bëggug dërëm ñu yar ko ci tey rek ni ñu yare sunu doom yu jigéen yi mooy jigéen war na am dërëm waaye ban kër kër yi la jigéen war a kër kër am dërëm gis ngeen ci jamono yi am na soxna soo xam ne Xadija la tudd moom nii la daan saraxee day sànni alalam nit ñi miskin yi ñëw di mbëkkante di jiiroo Rabia tamit di mëbét bis bu ko yàlla maye alal nii ja def di sànni miskin yi di mbëkkante ci kanamam nii loolu la koy defee euh, loolu la toog tey ci tefesu dex gi ci dëkk boobu ñu leen wax muy Basra Oh, ci dexu goo xamante ne mi ngi foofu mu toog ci peggu dex gi di xalaat bis bu ma yàlla mayee xaalis noonu laay def damay sànni naan jël leen jël leen may sànni miskin yi mbëkkante lii yëpp lu ko waral mooy xale bi dañ ko yar ci bëgg xaalis te xam ngeen ne jigéen buñ la yaree ci bëggub dërëm rek mooy mooy say alkande taxaw na gis ngeen am na benn waaye bu dégg Rabia daal di ñëw waa ji mu ngi tudd Xasan mu ngi jóge ca àll ba mu daal di ñëw fekk yaa ngi ci dex gi moom kenn di wax ak boppam naan nii laay def su ma waxee kii jëlal ne kii jëlal ñu ci des ma sànni leen ñu mbëkkante waa ji di ñëw mu ngi tudd Assane moom dégg na xale bu jigéen bi ku rafet la waaye daanaka daal du téye boppam xaalis rek la bëgg ku ko jox xaalis rek da mën nga kaa yóbbu fanaanoo ko mën nga kaa yóbbu nekk nekk ak moom mu ñëw sànni ko xaalis bi ne ko dama laa dégg moo tax ma ñëw yow noo tudd mu ne ko yow doo ragal fii ci àll bu lëndëm bi yow doo nga nekk fii ñu ra ñu rey mu ne ko déedéet ragaluma kenn. ismi Rabia. mu ne ko sama tur Rabia la. maa ngi dëkk ci dë e, dëkk bi di jege def gi nii soriw ma kenn laa waaye ku ñàkk laa mu ne ko ñàkk nga waaye loolu du dara waaye yow ku rafet nga te sa xol sa xol set na gis nga waa ji ñu koy baab lii la ñuy wax rek li xale yu góor yi naan baab tey waaw bu la bëggee toroxal rek dañ laa nangam nangam jar ngaa jaay jàkka jeeg piti ci taa fekk ay seen i kesa la nga ne jàkka moom kenn ko jaay ngir caaxaan mu ne ko am maa la may xaalis bii jëlal dépassé ko nu mu la neexee Rabia xool ko muy lu bari lool lu takk mu ne ah yaa maa ngi sant yàlla ci may gi ma may nii mu ne ko Assane laa tudd yow Rabia li ma bëgg mooy nga bàyyi seen kër nga ñëw fekk si ma Basra euh, xam nga li ñuy wax sàmba àllaar tey di nga gis benn xale bu jigéen boo xam ne benn waaye dafa ñëw may ko lu bare bare mu yaakaar ne waaje jógoom bëgg fekk du dëgg waaji bëgg ko musiba dong la bëgg ci moom nammul ci moom jàmm fekk waaje xaalis boo muy joxe am na fu mu xejoon gis nga waaji bàyyi na dëkk ak dëkk ñëw fekk si Rabia dëkk bi fekk ko ci àll bi moom dong may ko xaalis ne ko na nga bàyyi sa bàyyi sa kër nga ñëw seet ma Rabia ngi ni ak mbuusu xaalis bi dafa ne ne am na aljanna dafa ne ne àdduna am texe na parce que moom góor gu yor xaalis rek la doon ut gis na góor gu am xaalis. egsi na seen kër ci li yelloon mooy bi mu indee xaalis bi waa këram ne ko foo jëlee lii tey loolu di nga gis way jur yi di ci sàggan sa doom ñëw indi portable bi jar 200000. indi yëre buy jaar nangam ak nangam au lieu nga wàññi xool fu mu jëlee lii waaye da nga daan am na xéewal xéewal ñëw na rabia indi xaalis bi ci kër gi séddale may tante ji may xale yi is xoolal nijaay yi kilifa gu toll nii ñu dindi xaalis di la may ki may xaalis doo ko ne foo jëlee xaalis loolu dëgg-dëgg borom kër yi waroon nañ ko bàyyi xoola ëmb na ay yëreem fan la jëm ma ngay seeti xale bu góor boobu nga xam ne moom moo ko jox xaalis ne ko ma xoola bàyyi na dëkk bi ndeke nijaay ji ko gën a ko gën a kàccoore nijaay ji dem na ca bandi ya ca àll ba ne leen rabia xaalis bëri la yor man soxlawu ma ko moom na ngeen ko rey man xaalis bi rek laa soxla ngeen indi ma xoolal rabia ci àll bu mel nii ci xale bu jigéen ci lëndëm gii moom kenn kan la nekkal yàlla subhanahu wa taala waaye àndul ak mbindeef xoolal nijaay jaa ngi nii ci bandi yi di leen informé di leen jox information bi naan leen rabia day xaalis bu bëri la yor man xaalis bi laa soxla su ngeen ko jàppee lu leen neex daf leen bu leen neexee sax ngeen ko nekk ci àll ba càgg mu dégg biir yi ci suuf euh, xobu garab yi mu daw gaa yi topp ko sànni na ëmb ba gaa yi egsi nañ ci ëmb bi daal di koy tekki xool gis xaalis bi xanaa léegi kon mbir mi waroon naa jeex ndax loolu lañ leen yónni waaye de kenn ci ñoom daan ne nañ ko siif rey ko sànni ko ci ndox mi mu ngi nii xale bu jigéen bi di daw nekk ci àll bi moom dong soo gisee yonente bi alayhi salaatu salaam di tere jigéen mu tukki moom dong jigéen dafa gaaw a ñi buñ ko jàppee fii tey gaa yaa ngi fës gis ngeen moom mu ngay xuus ndox mi gaa yaa ngay wàqi di xuus bant yi di daanu ci ndox mi xiif mel ne ay bukk yu gis yàpp xam ngeen ne ñetti xale yu góor ci benn xale bu jigéen cëb àll bu kenn nekkul ah duñ ko jàppee jàmm daal xoola gaa yi moom it mi ngi daw xelu bakkanam li moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam naan jigéen na toog ci keppaaru yaayam jigéen na toog wax waqar na fii na yàlla naan ñu toog leen ci seeni biir kër wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyatil ula bu leen lambar lambari di tambaambaalu ci mbedd yi di wër rek koñ bu nekk nga taxaw fa xale bu góor bu la romb nga ni ko sama càmmiñ doom may juróom ma jënd fonde xale bi daaw na dugg ci benn néeg fekk fa benn góor benn nitu yàlla boo xamante ne dafa daw ci dëkk ba ñëw ci àll bi dëkk mu ne ko ay bandi ñoo ma dàq jël nañ sama saak dañ maa bëgg rey mu ne ko bu ragal ñëwal yàng ci sécurité yàlla allahu akbar ñëwal ñëwal fii fii sama néeg bi ku fi dugg rek yaa ngi ci jàmm yaa ngi ci kóolute yaa ngi ci sécurité yàlla jega sil bu ragal yow sama doom jega sil si nga Rabia amul fit parce que góor gi dafa màgget moo tax moom gëmul ni band yi bu ñu yegsee danañ ko rey rey góor gi moom loolu la gëm waaye góor gi gëm bii yàlla la fi àndal moo tax mu ne lan la mu ne ko band yi ñëw jël sama alal man mii lañ bëgg a rey nag léegi jël ma mu ne mu góor gi dégg yëngi jékki ndox mi di yëngu mu xam ne gaa yaa ngi ñëw mu daal di tëj kaamilam bi mu doon jàng alxuraan daal di jóg mu ne ko bu ragal yow sama doom yàlla moo nuy aar yàlla moo ne inna allaha yudaafi anil muminin yàlla mooy aar ñi gëm yàlla góor gi daal di génn daal di song bunt bi Rabia moom tiit na yaakaar na ne moom tey la bisam góor gi ubbi bunt bi daje xale góor mu ne lan la la ngeen bëgg ñu ne xale bu jigéen la ñuy seet mu ne xale bu jigéen bi nekk fii te yéen sax yéen band yi toll na yéen yéen ponkal yi toll na yéen amu leen lu ngeen def métier lu dul di wër ay xale yu jigéen naan xale bu jigéen yéen du ngeen ragal yàlla rek gaa yi daw góor gi soo seetee lan la dàqe ñi ndax doole la leen dàqee déedéet mu ngi leen dàqee turu yàlla mu ngi leen dàqee imaan la leen dàqee ngëm yàlla la leen dàqee gaa yi daan nañuy dem góor gi daal di dellu siwaat ci biir néeg bi fekk xale bu jigéen bi bu toog mu ne ko léegi nag mun ngaa préparer nga génn nga dem ci sa yoon waaye na nga góorgóorlu nga ragal yàlla yow xale bu jigéen bi mu ne ko loo leen def bañ dem mu ne ko dara dama leen a waar ci yàlla rek ñu dem ñu daal di daw dem mu ne ko xanaa xamoo loo ne yàlla mooy dëgg ngëm yàlla mooy dëgg nit bu ragalee yàlla loola gis ragal la waaye bis boo ñemee yàlla mbóot bu naawee ca saal sax nga daw mu ne ko yow sama doom maa ngi lay dénk nga ragal yàlla maa ngi lay dénk nga bëgg yàlla nga dellu ci say way jur nga toog ci seen wet nga toog ci seen keppaar nga xam ne yàlla dong mooy dëgg lu dul yàlla daal neen la mu ne koy waayoo góor gu màgget bi looy def ci dëkk bi ci àll bi mu ne ko man mënatumaa dëkk dëkk ba dëkk bi caaxaan a fa nekk gu dégg bëccëg man mënumaa gis caaxaan mënuma koo déglu te mbedd yi boo fa doxee ci caaxaan ngay gis caaxaan ngay dégg mu ne ko loolu daal man mënuma ko mu ne ko waaw looy dimbali ko fii mu ne ko jàng alquran di la di tudd yàlla ngir bëgg yàlla subhanahu wa taala bëgg ma mu ne ko loolu ku ko def yàlla bëgg ko mu ne ko waaw waaw lool ku ko def rek nga nekk xaritu yàlla subhanahu wa yàlla aar la problème boo am yàlla génn ci ndax yàlla moo ne wa man yattaqillah yaj'al lahu maxrajan wa yarzuquhu min haysu la yahtasib góor gi daal nay xale bi daal nay génn góor gi yaakaar na ñibbi mu daal di continuer yoonam di seeti Xasan ma ko mayoon xaalis waaye génn na mu dajeeg benn caravane bu jëm Basra mu ànd ci ginnaaw caravane bi di jàpp jàpp lu ci bagage yi pour ku ko séen yaakaar ne moom ñi ñoo ànd fekk yàlla xam na ne xamantewul ak ñi gis ngeen ko mu ngi nii bu mu génnee lu waroon def muy delluwaan ndànk ci keppaaru tàntaam jooju nga xam ne ñoo ko yar ak nijaayam ndax mu nekk ci jàmm waaye gis ko ma ngay wuri xale bu góor ba yegg si na ca dëkk ba waaye ca marché ba la dal bi mu ñëwee xamul kenn ci dëkk bi mu nekk ci mbedd mi di wër nekk ci marché bi fu nekk mu jaar fa waaye am na benn ku jigéen benn maire bu mu fekk ci dëkk bii mu ngi nii mu ngi tudd Khadija kooku xool na ko xam ne daal ci kaw kaw la gis na ko melakaan bi mu mel pënd poussière tilim ak yére yi mu sol rek moo xam ne kii daal ab kaw kaw la kii daal bu ma ko toppee dinaa am ci moom lu ma bëgg maire bi moom lii rek la nekkee ci koñ bi mooy xale jigéen yi amul kilifa yëpp da leen di jël yóbbu këram di leen liggéey loo guddi moom jëkkëram mi ngi nii nekk ci marché bi di wër di tambaambaalu nekk ci yi mbeddi Basra ak marché Basra ku jigéen kooku nga xam ne mu ngi tudd Xadija gis na ko mu ngi topp ci ginnaawam moom it di dox ndànk-ndànk lan la bëgg mooy am benn occasion bu ndaw rek xale bu jigéen bi rek pour wax ak moom pour jàpp ko yóbbu ko këram gis nga mu ngi nii mbedd yu nekk mu jaar fa waaye ndaw san ci ginnaawam moom it am na lu mu bëgg ci moom. xale bu jigéen baa ngi nii ñëw ba fii di laal ay yére jàmbur. lu nekk mu gis dafa xiif mu daa di sàcc banaana ndaw si daal di am nu mu waxee ak moom ne ko waa yow sama banaana bi nga sàcc nag te moom it xam ngeen ne moomu ko lu tax nga jël ko xanaa yow gan nga fi mu ne ko waaw waaw gan laa fi kay mu ne ko bu ragal waa lekkal continuer noo noo tudd yow xanaa yow ku bees nga fi mu ne ko waaw Rabia laa tudd ku bees laa fi kay mu ne ko waaw yow ni nga mel ni tilim nag ak tumaranke mu ne ko gan laa mu ne ko nañ dem sama kër nañ dem sama kër nañ dem bul tiit ah xale bu jigéen bi daan nay topp ci moom gis nga kii mooy jëkkër gi gis ngeen xaalis bi muy compter xale jigéen yooyu muy liggéey loo guddi ñuy fay moom lay konte nii moom xale jigéen yi amul kilifa yëpp la indi fii ci këram di leen booleeg ay góor ku fay rek nga daal di ñëw rek verser ko mu dindi ci dara daal lay coppate daal lay jox. indi na Rabia ci biir kër gi Rabia songu sakku yi ñëw ci biir kër gi xam ngeen kaw kaw rek bu jógee ca dëkk ba daal di ñëw ci ville bi dafay joom mi ndax yi muy gis fii te du ko gis fële ci yu sama jëkkër kii mooy kër gi mi ngi nii. soo nangoo nekk fii suñu doom lépp loo bëgg rek defal nañ la ko si waaye li yéeme ci kër gi mooy ni ñuy jàppee xale yu jigéen yi mooy kër gi dañ ko jël yére yi yëpp yi nga xam ne dafa rafet lépp tissu boo xam ne tissu bu am valeur la rek ñu daal di koy jël présenté ko ci ngir boo ñëwee rek boo nangoo ñu may la ci tissu yi nga nangu fee nekk rek gis nga ni lañ def nii tey daanaka lii mën nga ne fiir la goo xam ne tey fiir nañ ci xale jigéen yu bare bare bare bare bari dangay gis benn xale bu góor boo xamante ne nangu naa jëndal benn xale bu jigéen fukki paquetu mees nangu na koo jëndal jiin muy dangal ak nangam nangam rek mu ne am naa benn coof fekk xamul na du coof soof la xoolal yëre yi xale bi di ko gis rek jom mi dafa ne nee na tey addunaam baax na ndax yëre yi bu ko solee rek baax na xoolal mu ne waaw kër gii moom rafet na di xanaa àjjana ji may dégg fii la fii lépp fi fii kulli shay sa bi ne ko baa suñu yëf mu ne kii lu muy wax ak man. mu ne ko dara sa ko yow day foog yow rek mu ne ko fii soo nangoo mu nekk sa kër rek nangul ma nekk sa baay nga nangu sama soxna si nekk sa yaay rek sa lépp baax mu ne nangu naa ko gis la daal di jébbalu ci ñoom ne leen nangu naa ko sa bi ne ko génnal ñibbi génnal ñibbi ñibbil gis nga mu ne waaw du ngeen wax sa bi lu muy wax ak man xoolal ndaw si nangu na fee nekk sangu na ba set gis ngeen ko tey ni mel daan nay solu ñëw ci sakku yi ne leen lu tax tey lekku leen lan la xaaral ma feccal leen di ngeen a mer xaaral ma feccal leen gis ngeen. waaye góor gi ak soxna ak soxnaam ñi ngi ci ginnaaw barrière yi fenêtre yi di yëngu di yërndu di xool xale bu jigéen bi gis nga ndax xolam fiix na fi ndax nangu na fee nekk biñ ko gisee muy woy noonu di fecc ñu xam ne ñoom liñ bëggoon am nañ ko. ñu daal di préparé nag lal seen fiir pour fiir xale bu jigéen bi daal di ko ciy jaaral nee na ku liñ doon wër am nañ ko mu ngi nii hada ma kunna nantazir lii lañ doon xaar mbir maa ngi nii tey nag suñu affaire baax na fii nag moom moom la ñuy wax rek ku fecc moom dootoo feccati liñ doon ut am nañ ko kon nag nañ ko exploité gis ngeen dëkk bi dañoo yor ñaari aada mooy alxamis ak àjjuma mooy seen samedi ak seen dimanche alxamis la ñuy dajale xale jigéen yi band yi ci koñ bi ak naankati sàngara yeeg simbkat yeeg buubu golo yeeg gaynde yeeg rappeur yeeg musicien yeeg DJ yeeg tout pour lan pour caaxaane xale yu jigéen yi ku am sa caaxaankat rek daal ko indi ku am sa bandi bu jigéen daal ko indi gis ngeen góor gi dafa dem ba saam indi benn xale bu jigéen bu tudd indi moom lay présenté nii Xasan Xamaat a ngi nii ki mooy Xamaat ki mooy borom Sorano bi du jobaa ngi noonu mu naan kenn ku nekk toogal sa place toogal sa place yéen commerçant yi yéen borom alal yi ñëw leen ngeen toog tey jii guddi gii dinañ leen indil xale bu jigéen boo xam ne Miss saam la en mu ngi jóge Sam mi ngi nii Hind la tudd gis ngeen xale bu jigéen bi yëféer la soo xoolee tey kii melokaan bi mu mel ñàkk sol yére bi mu ñàkk sol yére awraam yi mu génn ci biti lii la sunu xale yu jigéen yi tey di toppandoo ah, dafa ne ab julit war naa mel nii ab julit warul mel nii ab julit bu jigéen dafa war a sol col bu baax ab julit bu jigéen julit bu jigéen dafa war a yiw ab julit bu jigéen melokaanam saa yoo daje moom ci mbedd mi war ngaa xam ne kii julit bu jigéen la yàlla subhaanahu wa taala bi muy tagg jigéen julit ñi def leen ne dañoo sol yére yu baax ba suñu génnee ci mbedd mi jullit ku leen mën a romb ku moo mën a doon di nga xam ne ñii kat ay jullit lañ gis ngeen mi ngi ci diggu góor ñi ak colom gu bon gi tey soo gisee lii ñii di def mooy naan sàngara déglu musique ak fecc ak woy daanaka moom la julli ñi di toppandoo tey foo dem ci sunuy xew foo dem ci sunuy activité foog musique am ci foog sàngara am ci foog jigéen ji sol lu bon am ci daanaka loolu dem nañ tey ba def ko diine képp fu nu nekk te li nekk fi rek dañ naan foofu sax loolu yoru ko mu ngi nii ki mooy miisu saam hindi la tudd mu ngi nii benn waaye dem tukki jële ko dëkk dëkk gis nga am ko ko laal rek mu daal di yuuxu ñu ne kii dof la lu tax ñu indi ko fii xale yu góor yi liñ bëgg mooy xale bu jigéen boo xamante ne dañ lay ci biir pénc mi ci biir piste bi ñu lay laal kenn du wax dara ñu ne kii nànd ci la waaye duñ la laalee nga wax dara rek ñu ne kii seer la ngaaka la xamoo nu mu demee daal lay sànni ci gis nga màndikat yi comme laal nañ xale bu jigéen bi mu yuuxu ñëpp ne nañ ko génne bi waa ji këpp sàngara bi mu yoroom ne lii lan la ñu daal di koy ah, génne ah, kii ah, ñëw ne ah baal leen ma man am naa xale bu jigéen bu ma indi <laughs> moom lii yëpp di ko ci fekk Rabia lay wax kat góor gi bu leen ko moom la Rabia nekk këram gis nga mu ne demal nga indi ko gis ngeen mu ngi nii dem na fekk Rabia fi mu ko dencoon kii ngeen gis muy nuyoo moom mooy Xasan moom la Rabia doon wër mi ngi nii waaye xamuloon ne Rabia ngi fi dafa ñëw fii rek habitude am la comme niñ fii ñëwee bis bu nekk ndax fii la ñuy dajaloo di def lu bon. <laughs> gis nga muur na Rabia ah, ah, ne ko waa loo koy muuree indi mu ne wu damay bañ ngeen xam kii dafa rafet. kii moo dàq jant bi kanam gi dafa leer ba moo raw jant bi kii damay bañ su ma ko ubbee yéen ñëpp ngeen xëm waaw wajjahan musriqa kasams gis ngeen mi ngi nii mu daal di koy génne nga gis séeréer yëpp daal di daanu leer naan woo tëb waa kii la moom de moom rafet na moom wóoroon xoolal waa ji moom ñu koy xelli sax waaye xoolu liñ koy xelli mu ne yow sang bi xoolal kii ni mu rafetee kii nu raw la ki fi njëkk a jaar de léegi nag lu muy def xoolal asana ngi nii xool na Rabia Rabia xool na ko ñoom ñaar xamante nañ mais ku nekk fàtte nga foo gisoon sa moroom ndax asan tey ni mu gis a Rabia ni mu rafetee nii ah moo tax mu fàtte mais daal xàmme na ko waaye xamul ne Rabia moom la doon wër si gis nii mooy kii di naan mooy asan rab yaa ngi nii bàyyi ndeyam ak baayam bàyyi tànkam bi ko yoroon xoolal waa ji di ñàng ñàngaloo ak banaanam naan wax leen ma dëgg xale bii lu mu jar góor gi léegi li muy def mooy day jaay xale bu jigéen mu ne lu ngeen ci fay dina fay naa ñaari junni dinaar ñu ne ko loolu dafa néew loolu tuuti na kii ne man fay naa juróom fukki junni diinaar kii ne fay naa juróom ñaar fukki junni diinaar ku nekk nga yokk ku nekk nga yokk mu ne yéen di ngeen a lay xale bi ëpp na lool kii ne man fay naa fukki junni dinaar xoola kii di ñàng ñàngaloog banaanam naan nan fay naa fukki junni ak juróom ñaari dinaar du ñàng ñàng di jéem a jaay ne am na alal xoolal ku fay rek keneen fay kii yokk na prix bi mu fayoon xoola kii na teg asan moom ne mu dugg ci woon waaye mu jékki-jékki rek daal ci pët nee na man fay naa juróom-ñaar fukki junni dinaar sittata achara kii ne man fay naa moom it lu ëpp gis nga ku fay rek mbokk yi keneen day ëpp day day doublé thamaniyata achar kii doublé na moom it tisata achara alfan kii di jóg doublé allahu akbar gis ngeen Assane daal nay jóg taxaw xamsatan wa moom moo tëj bunt bi nee man fay naa juróom-ñaar fukki ah. milliards dinaar allahu akbar daal nay gañe xale bu jigéen hmm. xoola kii sànni na sàngara sama doon naan xamaan nee na Assane gañe nga xale bu jigéen bi gañe nga ko jël ko mu ne dara ah, bon li ngeen bëgg laa bëgg rek c'est que yaa ma invité ci sa kër nag waaye su ma fi ñëwee fekk fi lu ma bëgg dama koy jël gis nga daan nañu jaay Rabia waaye yëg waxuñu ko ne dañu laa jaay xoola xale bu jigéen boo xam ne danga bàyyi sa ndey bàyyi sa baay bàyyi lépp nekk dem ci àll boo xam ne kenn la loolu ngay gis tey suñu jigéen yi di tukki nekk ci àll yi kenn xamuñu fa kenn lu nekk mën leen faa dal waaye nit ñi moom li leen intéressé rek mooy mu xaalis a ngi ni xaalis xaalis xaalis mbir mi du loolu na ko kër gi borom kër gi moo la moom kii laa la jaay mu ne ko da may jaay man may gor mu ne gor laa nga may jaay rek waa ji daan na tënd ne ko déedéet doo jaam yow yaa ngi kër Xasan yow raabi yow war nga maa xam ndax man tukki woon naa dëkk ak dëkk pour jëli la pour indi la nga nekk ak man ra Asan daan nay xàmme raabi léegi raabi xàmme na Asan allahu akbar gis ñoom ñaare ngi ni xàmmante ku nekk xàmme nga sa moroom mu ngoog mi ngi nii ñu ngi xoolante ñoom ñaar ku nekk xàmme nga sa moroom waaye Assane ni mu jote ci Rabia mooy dañ ko koo jaay xaalis bu bëree bëree bëree bu takku gis nga góor gaa ngi nii nee na ko léegi bul waxati dara indi naa la fii ci kër Assane mu ne ko waaye mën nag nangu ba nga jaay ma waroo ma woon jaay man maa bëggoon wommat sama bopp ba yegg si fi lu tax nga may jaay ah, góor gi moom Assane daan na koy piis ne ko demal gis ngeen góor gi dem na yóbbu na xaalisam jaay na doomu jàmbur jaay na jigéenu jàmbur jaay na mbokku jàmbur nee na ko xoolal kër gi sa kër la bul yaakaar ne dama la fi exploité di la def jëfi jaam déedéet na nga mel ni ku nekk sa kër mu ne ko waaw man fii laa bëggoon ñëw man dama la bëggoon indil sama bopp maa ëmb samay ëmb yëre wamat sama bopp bëgg a ñëw fii nekk ak yow waaw man looloo ma fi bëggoon waaye xam nga ni ma fi indee ni neexuma parce que dañ ma laa jaar mu ne ko yooyu yëpp fàtte ko gasal pax dugal ci waaw man dinaa la liggéeyal sama wen ngay nekk waaw kii est da koo takk est-ce que jabaram la ba mu naan ko naa la ànd moom xoolati nekk naan dañuy dem ay sorte xam ngeen ne tey sunu réew mi ñu nekk li fi yàqu ci ay xale yu jigéen ci sorti sorti dégâts yi fi def ay doom yóbbu ay xale yu jigéen ay góor ak jigéen yóbbu doomi jàmbur yi ci àll yi ci giir yi ci tefes yi yàq leen indiwaat leen naan sorti waaw ñu góorgóorlu aar sunuy doom képp koo xam ne kilifa nga war ngaa aar sa njaboot ndax kat yàlla subhaanahu wa taala wax na ci alquran yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran yéen ñi gëm musal leen seen bopp musal leen seen njaboot keroog bi aaye bi wàccee dafa am saxaaba bu jooy jooy yu mettee métti ñu daal di koy laaj looy jooy mu bañ a tontu ñu dem wax ko yonent bi ne ko diw bi mu fi bàyyeekoo démb ba léegi mi ngi jooy yonent bi daal di koy woo ne ko looy jooy mu ne man miy dey li ma daan jaamu yàlla xeeb naa ko ci sama bopp xam naa ne man du ma dugg àjjana yàlla jëlaat sama njaboot teg sama kaw yonent bi xool ko ba ci yàlla ne ko waxas bu ka yow daal dina doy ci yow waxas bu ka an taamuru bi maa taamuru bihi ndeysaan dina doy ci yow rek nga li nga digal sa ko sa euh, man de dinaa la defal lépp àdduna lépp loo bëgg rek dinaa la ko raabee ne ko man daal lii dama ci bànneex gi may dund kontaante gi noos gi ma nekkee waa ji ne ko dara waaw waaw man daal law laa jox sama lépp fi mu nekk nii gaynde bu fi ne tëll sax ma ne ko us mu daw xam nga war nañu delloo suñu xel jigéen joo xam ne xale bu góor tàmm ko nekk sa bëgg a jot ci yow façon fexe bu nekk dina ko dina ko def façon fen bu nekk dina ko fen wallahi gis nga jigéen saa yu bëggee góor góor gi xam ne diw mi bëgg na ma su ko ne woon damaa bëgg biddéew yi asamaan si mu ne ko suba ma indi léegi nag benn problème am na benn histoire bu rëy commerçant yi waa xaalis ba mu jënde woon rabia xaalisu commerçant yi la dafa waroon garder Euh, commerçant yi léegi nag commerçant yi dem nañu boole ko ci buur ba ne ko daal Assane daal dafa jël sunu xaalis waroon garder sunu caravane garder wu ko léegi buur bi daal di koy yónnee ndaw ndaw laa ngi nii di ko woo ndaw li woo na ko léegi jaaxle na jaaxle na ndaw buur woolu na ko ku buur woolu moom foog nga jaaxle ku xëy suba rek ñu ne la buur la woo buur ne na soo gardewul karavaanu gaa yi na nga leen delloo seen xaalis mu ne mais man bañu ma ko garde man dinaa respecté délai bi dinaa ko def gaa ne ko déedéet jot na mais yow yaa xale bu jigéen bi di daw rek liggéeyatoo gorotoo yettatoo waxal lu léegi garanti lañ bëgg. lan mooy garanti. Xasan wuyul buur bi nee na ko wuyul garanti mu ne man waaw luñ bëgg. waaw ñu ne ko dañ lay avertir benn rek moo fi nekk dund ak dee mbir mi da nga ko war a def defoo ko nga delloo nit ñi seen xaalis. am na problème waaw ñoom dañoo bëgg nga jox leen garantie bu leer rek xam maa daan ne tëll. daa ne man maa koy garantie. ah Amath nee na day garantie Assane. ñu ne ndax nangu ngeen. kan mooy kan mooy résister kuy bañ. kuy bañ ñëpp ne teg. gis ngeen ñëpp nee nañ tekk nangu nañ xamaat ndax xamaat borom xaalis la comme Assane. laqad qubila damanaat nee nañ nangu nañ garanti amaat Assane. ah hmm. léegi nag am na benn problème boo am nee na ko garanti naa la. Amath bàyyi na ba Assane ñibbi mu ñëw këram ne ko ah soo gisee ma la doon garanti damaa bëgg nga jox ma raabi ama nit ma noos. mu ne ko eh man ma defoon ne da may garanti ngir yàlla rek ngir sama xarit nga mu ne ko déedéet ah da may jox xale bu jigéen bi ma noos. sinon rek ma dem léegi ci buur bi ne génn naa ci ñu tëj la ci kaso mu ne ko ah man yaakaaroon na sama xarit xarit affaire xarit la mu ne ko xoolal affaire xarit amu fi xam nga ne ñett kenn du ko waaw waaw ah léegi Assane am na problème foog mu yóbbu Rabia léegi garanti ji ko kër Hamad mi ngi ni ndeysaan di ci diisoog Rabia Rabia nee na ko dara amul problème bàyyi ma ma dem nga garanti ma foofu bu soobee yàlla bul yaakaar ne dinaa def ak moom lu bon duma moy ak moom yàlla dinaa téye sama bopp dinaa téye sama bopp ba nga xam ne man mi am naa fulla ci sama bopp léegi yóbbu nañ rabia kër xamaat mu ne tëll yegg rek mu ngi nii mu ne rabia ndénkaane lu riche la lu cher gaa yaa ngi ni di ko ndokkeel naan ko yow am nga lu kenn amul rek rabia ne tëll yegg si ak ëmb yëre mu ngi nii ñëpp kontaan rabia ngi nii fii lañ ko garanti ba xamaat asan delsi asan day gaar ji caravane yi mi ngi nii egg si nee na ko toogagul sax mu ne ko damaa bëgg nga feccal ñu lam aati ila hunaka raqisa mu ne ko fecc indiwuma fi dañ ma laa dénk donc ma war fee nekk ba sama nekkaale bi jël si ma daal di jibbi daal koy won ginnaaw ànd ak fullaam jigéen daal lépp lu góor ut ci moom am ko rek dafa àndul ak fullaam olof yi dinañ léeb ne bukki bu yabee ponkal ca doxin bala asana ngi ni ci këram di xalaat vraiment lu muy tukkee ci àll bi bàyyi fi Rabia ci dëkk bi ñu ngi ci biir néegam ndeysaan moom di xalaat Rabia it moom man fañ ko dénkaane ma ngi biir néegam di xalaat Asan ñoom ñaar ku nekk ndeysaan yaa ngi xalaat sa morom kii ngi fii di xalaat nan la fi bàyyee kii waaye kii di fële di xalaat naka la nar a dundee wéetaay gi ba Asan dellusiwaat ñu ngi nii Asan ah. a ngi nii ci biir këram jaaxle waaye ñu jékki-jékki rek xamaat daal leen di romb daal di romb xale jigéen yi yor benn wëlis or benn boîte or di ko yóbbu ci néegu Rabia mbokk yi yéen ñi xale jigéen jàng leen fii lu rëy rëy rëy ci boîte or bi Hamad di indil Rabia bu leen fàtte ne Hamad mi dañ ko dénk Rabia rek waaw kuñ la dénk xale bu jigéen ñu dénk la ko nga bàyyi ba guddi di ko indil boîte or loo ci bëgg xoolal ba pare mu fekk xale bu jigéen bi di wéttale Rabia mu piis ko ne ko génn mu ne ko lii pour lan la yow Hamad mu lu ma am dinaa la ko indil lii ci li ma la a jox daal di teg boîte or bi gis nga. kafaaki xusnan. nee ko bul naqarlu. fii sa kër la. ah Rabia ne ko man dama bëgg a mu ne ko non sama kër yaatu na rafet na. waaye nee na ko sama xolang ci Assane Assane laa bëgg man. mu tëj boitu or bi. nee na ko ba may dee ci Assane laay dekk Assane laay jox sama xol. mu ne ko Rabia man dama la bëgg génneel sa xal Assane dugal ma ci man man loo bëgg dinaa la gàtte ñoo déet muy simil rek Rabia ne ko waaw yow nii. gis nga muy muy forcé gis nga li ne da koy siif wala lii gis li lu ko waral li waaye jëlal fi waay yow lii lan la nii waaye yow yow yow ñàkkoo fayda lii lan la rek mu ñëw ne ko da nga fe ne boîte or bi naa ko joxee ci rien lii lépp ma jox la ko ba ba fu muy jeexee yow ci man ngay mujj yow daal këpp or bi sànni ko ci kanamu Rabia daal di génn waaw lii yëpp li ko waral mooy ñàkk kilifa wala fi nee nañ ku amul kilifa jinne nekk sa kilifa Rabia ndeysaan ci jamono yooyu nag mu dégg benn jàkk ci wetam xoolal ma fàttali mooy dëkk bi yëpp ay juddit lañ waaye ñii rek ñoo fi jaamu yàlla ñi nekk ci jàkk allahu akbar dëkk boo dem da fa fekk ñu baax ak ñu bon foo dem rek noonu la ñii ñoom it nit ñaa ngi caaxaan waaye ñoom yàlla rek a leen saf yàlla rek moo leen ñor yàlla rek lañ bëgg ña ngay bàkk yàlla ci ay turam yu sell di ko kañ di ko màggal moom buur bi subhaanahu wa taala rabia di déglu gaa yaa ngi nii ñu ngay kañ borom bi subhaanahu wa taala ñii la yonent bi alayhi salaatu salaam naan adduna bi lu mu yàqu yàqu rek dina fi am mbooloo moo xam ne kuréel goo xam ne yàlla rek lañ jox seen bopp yàlla rek lañ dénk seen pas-pas. du ñu bëgg kenn du ñu topp kenn ku dul yàlla mu ne ko Rabia xoolal ñi ñi ñu baax lañ ñi ñooy ñu baax ñi nekk ci dëkk bi ñi rek ñoo fiy jaamu yàlla xoolal ah, Asan nag toog na ba ci mu ne day seeti Rabia kër gëm ko dénkaane ñëw na ak naqarloom rek xamaat kong song ko rek naan ko waaye sama xarit lan la sama copain lan la ah lan la mu ne ko Rabia laay seet mu ne ko non amul problème dama la ko fee dencal rek après bu delsee dama la ko boo dellusee dama la koy jox mu ne waa dama ko bëgg a nuyu si dama ko bëgg a gis mu ne ko amul benn problème xoolal fii sa xol dinaa la ubbil yoon bi demal nga seet ko amul problème xoolal daan nay dem gis ko waaye Assane lii muy seet si Rabia neexul xamaat xoolal indi nañ ko xale bu jigéen bi war na ko néeg bi Rabia nekk moom Assane mi ngi tàgg si ak Rabia pour war a dem garde ji caravane yi ci àll ba mu dugg rek Rabia ci kawam daal di Assane mi ngi nii di tàggatoo ak Rabia toog ci wetam dafa war a dem ci àll bi gaada ji caravane nee na ko maa ngi lay ñaanal yàlla sa tukki bii nga tukki gaaw ñëwaat mu naan ko damay ñëwaat damay ñëwaat léegi man xam nga ne band yi ñemewuñ ma man ngand laa man ponkal laa man man damay ñëwaat léegi loolu moom bu yeboo sa xel dal ci waaw damay ñëwaat ndeysaan waaw mu ne ko waaye rek leen rek moom métti mooy dinaa la gëj a gis sa kanam gi laay gëj a xool ko léegi ma ñëwaat waaw mu nekk su ma ñëwaatee dinaa la takk xoolal lool rek nekk ak moom ay at ba pare naan su ma ñëwaatee dinaa la takk loolu bañ diine la ah balaa nga doon nekk ak moom kay nga war a takk waaye nekk moom ay ati ati at li ngay gis tey xale bu jigéen bu ñibbil xale bu góor ah la mu bañoon këram mu nang ko ci kër xale bu góor di fóot di bale di togg di paas du nekk nga dugg ci te loolu bañ la nee nangam ak nangam dangaa bañoon dëgg melokaan tey yàlla nañu yàlla gindi woon ñu dëgg wërsëgal ñu topp ko gaa yu baax yaa ngoog ñi ngi ci seen jàkka nekk ci seen mënin mooy tudd yàlla subhaanahu wa taala ak di ko bàkk ak di ko kañ moom bi nga xam ne mooy borom asamaan ak suuf mooy borom kun fayakun Rabia nee na yàlla subhaanahu wa man demaa ngi lay ñaan nga dimbali ma nga aaral ma sama waaji ba mu ñibbis Rabia xoolal du julli du woor musul sangu set takk rip naan ñaan yàlla gis ngeen njëg yaa ngi nii lii la euh, war a gaar di caravane yaa ngi nii gis nga waa ji ngi naa leen dajaloo leen bu leen tàqali ko ndax mbir mi mën a yomb gis nga gaa yaa ngi dajaloo dañuy dajaloo ndax jamono yooyu dafa amoon ay agresseurs yoo xam ne dañuy nekk ci àll bi rek xoolal am maata ngi nii di fexeel Assane nee na bëkk néegam bi ñëwal suba na nga dem nga utal ma ñaari saay-saay yu mel ni yow dinaa leen fay xaalis bu bëri ngeen reyal ma asan bu mu delsi ndax asan bu delsee day jël raa bi te man vraiment fexew ma raa bëggu ma raa bee génn sama kër asan ah, fexeel na yaa ngi nii ci àll bi caravane bi la asan wala gaar na ji si ko mu ngi nii di leen wër day wër ba yàgg dem ba ci kanam ñëwaat ci ginnaaw wër ndeyjoor wër càmmoñ ndax Assane jamono yooyu kan ñemewuñ ko lu mu aar rek loolu daal di mucc gis ngeen Rabia ngi ni ci biir néegam lan la def yottalu kaayam mooy ñu koy gitaaral muy déglu caravane yaa ngi ni seen kanam ngeen di gis Rabia ngi ni ci biir néeg bi di xalaat Assane waaye bu leen fàtte ne Assane kat xamaat fexeel na nee na ko takk leen comme noppalu nañ nag acca dañ leen jógaat ñu doxaat mu daal di jóg takk fasam ne xaaral ma wàcc montagne yi ma xool ndax amul ay band yu fi nekk ci suuf Assane a ngi nii di ñëw a ngi daw daw yu métti si nga band yaa ngi nii ñu ko boole mu romb rekk flèche yi dal benn ñaar mu daal di daanu flèche yi dañ ci def poson jam nañ ko ñaar muy waaj a jóg gis ngeen flèche yi ni mu duggee muy waaj jóg rek ñetteel bi daal di dugg kon Assane daan lay faat rey nañ Assane xamaar rey lu na Assane ñu daal di yenu Assane ni ko ci morgue ba ca jàkka ja ñu wax ko Rabia rek Rabia dawee xëlu ba kanam ndax nee nañ ko ka mu nekkaloon dee na mu daan daw fekk ko ca morgue ba ca jàkk ja ndeysaan ñoo rek tëdd ci kawam commencé yuuxu ndeysaan waaye xam ngeen nit ko gëmul yàlla nit koo xam ne pas-pasam wérul nit koo xam ne dara baaxul si moom su amee naqar du xam yàlla rabia naqar bi kan la ko accusé yàlla nee na yàlla yow li mooy sa maandute yow yàlla li mooy sa maandute yàlla li mooy sa da ngay aaraate yow sama waa ji yow yàlla aaraloo ma ko ba ñu rey ko la Rabia ngi tudd ci kaw waaye xoolal naqaram bi kum ko kum ko dal ci kaw yàlla la ko ñu ngi koy xëcc xoolal xaj amaat di ko xëcc li ñu naan dëmm rey la jaale la mi ngi nii di ko xëcc mi nii di ko xëcc naan ko muñal lii du dara fekk moom mi moo ko reylu waa ji di ko xëcc moo ko reylu waa jàkka jàngoog ñoom ñu nga ca seen manin rek wallaahi jamono boo dem dëkk boo dem te am ñu bon rek am ñu baax waaye ku ku am xel nga góorgóorlu ba nga bokk ci ñi baax. Rabia ngi nii bëgg nelaw mënu mooy naqaru xolam dañu rey xasan waaye mu toog fii dégg ñi di tudd yàlla rek mu yuux askitu haula noppi loo leen ñii waaw ñii kan la ñuy kan la kañ ku ñuy wax turam bi yàlla amul yàlla ay faux problème la jaamu yàlla daal ay caaxaan la bu yàlla amoon asan du duñ ko rey waaw ñii daal ñëpp a yem ku mu neex nga weddi yàlla ku mu neex nga bañ jaamu yàlla waaw yuuxul di leen yuuxu noppi leen uskutu noppi leen bëggumaa dégg li ngeen di wax daf may gene seen tur yi ngeen li ngeen di tudd tudd yàlla xoolal mi ngi leen di yuuxu mi ngi leen di yuuxu di leen yuuxu bu baax ndeysaan imaamu jàkka ji daan na koy dégg mu daal di gestu Rabia waaw jàkka ji daan nañuy noppi di déglu Rabia rek ndaw si nekk ak Rabia ne ko da nga war a gëm yàlla mu ne ko merde gëmuma xam ana yàlla yàlla dafa am ay faux problème la caaxaan yi ñuy nekkee nekk fii di amee ana yàlla waaye dimbali ma waay yow et sax yow nag ma moytandi ko soo baal may wax sama wax nga ciy dugg may wax ak ñi lu ci sa yoon ñoo Assane lan la def ba ñu rey ko ah. acca génnal sax yow seytaane bi nga doon may wax nga naan ma yàlla ci biti dàq na ne dàq ndaw sax xam ngeen ne kii xolam lëndëm la sori na yàlla subhaanahu wa taala waaye nag loolu la wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka képp koo xam ne du mooy na njubal yàlla rek da nga dund dund gu xat da nga wallahi léegi xamaat pour Rabia ànd ak moom génne na Rabia sorti pour féexal xolu Rabia pour Rabia daal di koy gëm tey ñu ngi nii daal di bàyyi dëkk bi ñëw ba ca àll ba mu ngoog nee na dañuy féexal xol tey bëri na ci ay jullit yoo xamante ne buñ bëggee ne dañuy mooy yàlla dañ naan dañuy féexal seen xol génn ànd ak xale yu jigéen yi ñu baale seen lépp waaye li ci metti mooy dañoo dem ba ca buntu kër góor ga ñu daal di fay escale ngonnal fa góor gi daal leen di nuyu ne leen asalaamaaleykum damaa nekkoon ci yoon bu méttee métti bu sori ma daal di mar naan ma jàdd pour ñaan leen ndox ngeen may ma ma naan. Rabia xàmme dugut nee na ko may leen ko ndox wala bandi bi indil nañ góor gi ndox ngi naan. <laughs> li ne na Rabia lu tax mayoo ko ndox mu naan yow Rabia ne man leen laa koy may lu dul ndox. góor gi daan ne daan ne ne ki ko may ndox jazaakallahu xayran yal na la yàlla fay yiw waaye góor gi ndax dafa war a def liggéeyam li mooy taxawaayu daa daa yi daa yi mooy koo xam ne day woote ci yoonu yàlla subhanahu wa taala waroo romb ñoo xamante ne dañuy caaxaan rek nga daal leen di won dox daal dem waaye da nga war a wax ak ñoom laal leen di iqaamatul hujja nga daal leen di leeralal diina yàlla góor gi daa yi la wootekat la ci yoonu yàlla mu ne rabia li war ci yow mooy nga gëm yàlla nga dugal yàlla ci sa nga bàyyi xale yu góor yi nga dugal sa xol mu ne ko yàlla mu ne ko ki bind asamaan ak suuf moo bind lépp loo gis moom kenn moom la ñu war a jox mu ne yàlla mooy aare mooy sàmm mu ne ko hal tashukkiina alaa zaalika ndax da nga ciy sikki sàkk da nga ciy sikki sàkk rek xale bi gis ngeen li mu defoon mu dindi bopp bi musóor bi jëw ne na ko yàlla bu amee na ma rey na yàlla taw sama kaw ay xeer yàlla amul loolu la laa wax ay faux problème la bu yàlla ما قسيته man yàlla talaam amul tan aca bu yàlla amee boo ko na daaneel asamaan sama kaw waaw loolu la xale yu góor yi taxawee boo dee yàlla tawal glace boo dee yàlla tawal doj day dégg tey langage yu bon yooyu suñu réew dañ ko jël sax tey di ko wax yàlla du moroom yàlla dañ ko war a wekk ndaw si nee na jox leen ma sàngara jox ma sàngara allahu akbar ñu indil ndaw si sàngara lan def mu ne góor gi naan sàngara nanal benn mani la naanal ñaar gis nga yëngal ko ba mu tuuri ci kaw góor gi mani naanal góor gi jël kaas bi wala mu ko koy xëpp góor gi daal di xool kaas bi daal di jàng alxuraan daal di koy tëfli ci kaas bi daal koy delloo na ko sama doom man duma naan katu sàngara jëlal sa kaas xaalis Rabia daal di jël kaas bi daal di xool kaas bi rek mu seen asan ci biir kaas bi asan naan ko allahu yàlla rek a mag amul benn buur bu yàlla subhaanahu wa taala yow raabi a génnal ci caaxaan yi dugalal yàlla sa xol digal man asan mii tuub naa ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasul seedaanal yàlla kenn la muhammad yàlla ko yóbbi raabi tuubal tuubal nga génn ci caaxaan yi dugal yàlla sa xol dugalal yàlla bëgg yàlla sa xol rabia tuubal tuubi tasadi tuubal nga texe allahu akbar rabia daan nay tiit la mu gis moo ko gis la mu dégg moo ko dégg mu sànni kaas ba rek daw bandi ñëw ci góor gi naan ko gis nga yow yow yow nii rek ngay def nga yàq ko ah rabia daw na fit bi rëcc na xol bi bëgg a dagg mu daw ci àll bi ne day wër yàlla day tuub pour wër yàlla ma ngay daw fit bee rëcc xol bi di bëgg a génn allahu akbar muy daw di wër montagne yi nee na yee wër yàlla ndax réer gi mu réer nee na yàlla yaa màgg yàlla yaay ki màgg yàlla yaay ki màgg allahu akbar yow sama borom yaa rab yaa rab yow sama borom ixfir li jéggal ma ma ngay daw pour nee na dafa bëgg si yàlla fu mu nekk mu tuub ci kanamam mu jéggalu ay yàlla baal ma ayyuha rahim yow mi yërëm say jaam irham nii yërëm ma yooyu mi yërëm say jaam allahu akbar yàlla rek a màgg amul ku màgg ku dul buur gi tabaaraka wa taala nag suuf gis ngeen xelam lu mu ko indiloon mooy mu yëg ci montagne bi daal di cëppeelu pour dee waaye yàlla daal di koy yénkeewal mu daal di sujjóot ci kanamu buur gi tabaaraka wa taala daal di sujjóot daal di mu ngi noonu sujjóot ah rabia mbokk yi waa jàkka jaa ngi nii di jàng gis ngeen ay jullit war a bëgg yàlla Rabia ñëw na ndeysaan ñëw na ci jàkk ji ñi ma doon xas allahu akbar yàlla nee na Yunus dafa bokk ci ñi ma yónni allahu akbar mu ngi nii Rabia ngi nii ci buntu jàkka ji daal di toog xamul nu muy def imaam bi daal di ñëw ndeysaan maamam bi ñëw ne ko lan la yow sama doom bu jigéen lan la mu ne ko bul ragal bul tiit yërmande yàlla yaatu na bëggal ji say mbokk mu ne képp ku dox ci yoon yërmande yàlla di nga yegg si yàlla dina la may gëm yàlla subhaanahu wa taala duggal duggal yow sama doom bu jigéen fii say mbokk ñoo fi nekk soo demee nga nekk ci ginnaaw góor ñi jigéen bu duggee ci jàkk dafa war a nekk ci ginnaaw góor ñi góor ñaa ngi ni toog ñu ngi leen di tafsir alquraanul karim yàllaa ngi wax histoire Yunus bi ko jën bi wonnee yàlla nee na bu fekkonte ne li mu nekk ci biir jën ba di sàbbal yàlla naan laa ilaaha illa anta subhaanaka inni kuntu mina zaalimiin yàlla nee na dinaa ko téye ca biir géej ga ci biir jën ba ba àdduna bi jeex allahu ngi nii gis ngeen melokaan bi melokaan tey ak melokaan bi meloon démb yegsi na ca ginnaaw ca ginnaaw góor ña ca jàkka ja mu daal di toog mi ngi nii ndeysaan di jaamu yàlla di bàkk yàlla di ko màggal di ko kañ raabia di naafila di julli di jàngal Qur'an ñu koy waar di ko yéegal imaanam di ko saxal di ko dëgëral nga xam ne ne ngëm yàlla foog mu dund ni yaram di dundee yaram li koy dundal mooy lekk ak naan waaye ngëm yàlla li koy ru li koy suuxat ruux li koy suuxat mooy jaamu yàlla subhaanahu wa taala doomu aadama bu buggee ruuxam dund foog mu jaamu yàlla gis ngeen Rabia mi ngi nii changé na jaamu yàlla di jàng alxuraan di julli waaye loolu xam ngeen am na ñu dul neex ndax nit saa yoo bëggee jaamu yàlla rek di nga gis gàllankoor yi commencé waa koñ bi commencé nañ xoolal ñoom likra ak ñoom jumax aawat ak ñoom fiiso commencé nañ naan moo seytaane bi tas dëkk bi fare naan day muuru um ñu dimbali nanu dimbali ñun fii àdduna la waaye ñun bu mu ñu rey yow yow xoolal dem waa ndaw si dem na di woote ji ñoo leen ngeen seetaan rabia nee na yée daa muuru nee na yée day jaamu yàlla waaw gis ngeen de ñëpp a ngi daw di seet tey di xool ah borom kër gi dafa tukki xam maan ñibbisi mu ñëw fekk ñëpp di ko teeru waaye gisul Rabia. ayna Rabia. mu ne ana Rabia. limaada lam taati wa tastasqi. luy ndey ñëpp di ma teeru te Rabia teew. ñu ne dafa feebar. naam ñu ne ah Rabia day ba nga demee ba léegi. te góor ñi lay fanaan ne ca jàkka ja. ku ñëwee nee na yéen di tëjee góor ñi sa biir néeg xoolal ndaw si fen yi bu mag yi muy fi. mu ne looloo fi am mu ne looloo am sa ginnaaw rek waa ji daal dem tëdd. daa ne ko Rabia ñëw na mu ngi biir néegam waa ji daal di jóg ñëw déglu ci buntu Rabia bu dee garaabe ma ngay wax naan yow yàlla sama borom yow laa dugal sama xol ba mu fees yow yaay leeral sama xol yow yàlla jéggal ma yow yàlla yërëm ma yow yàlla nag ma baal yow yàlla maa ngi lay ñaan nga dugg ci sama xol ba nga fees dell ba dootuma gis kenn ku dul yow dootuma bëgg kenn ku dul yow waa ji nag moom yaakaar na ni ci bi garaabe ay góor lay waxal. bismillah mu déglu déglu. Rabia naan yow laa bëgg yow laa sopp yow laa miin mu defar rek mu def rek mu daj buntu bi ndeke Rabia day ñaan da doon julli mu ngoog kon mu ne ko yow koy waxal mu ne ko yàlla laay waxal ma allah mu ne ko yàlla ban yàlla mu ne ko yàlla mi nga xam ne mooy bind asamaan ak mu ne ko yow ngay caaxaan yow ngay bandi yow caaxaankat bu mel ne yow. Hmm. nooy nekkee fii di wax. ah mu ne ko Rabia baal fam bi ngay def Rabia bu génnal kii yow yaa taxoon ma tukki uti alal dem naa tukki ut alal bu bare bare bari ma ñëw nga fekk ngay def sa caaxaan yi waaye dellu sil waaye dimbali ma dellu sil ci dund gi non génnal ci muraay yi fekkal naan du tey bàyyi caaxaan am naa alal ñëwul ñu noos raabe ne ko dama bëgg nga may ma aafiya nga bàyyi ma ma jaamu sama boroom li ma fa doy na damay jaamu yàlla damaa gis woon dëgg gi dëgg gi leer mu ne ko xam nga li ma lay wax su kanamee damay amay gan da nga ñëw nga feccal leen ndeysaan xoolal kuy jaamu yàlla ñu ne da nga ñëw nga fecc ndaw si moom li mu fas yéene ci xolam ak xelam mooy dootul feccati ba duna jeex mi ngi naan yàlla yàlla nga may xolu muñ ba ma mën laa jaamu lépp lu ma def maa ngi lay ñaan nga ma xolu yow yàlla jéggal ma yow yàlla yërëm ma yow yàlla baal ma samay yaa ngi mbokk yi yàlla nee na ñi nga xam ne dañoo jël seen àdduna jënde ko allaaxira ñu fa maa rabihat tijaaratu wa maa kaanu muhtadin ñooñu jubuñu te seen commerce boobu ñu def mooy amuñu bénéfice gis nga Rabia fekk nañ ko fii bu mu julli woon ba toog di jaamu yàlla ñu ne ko jógal ay gan ñëw na jógal nga fecc xoolal kuy jaamu yàlla ñu ne jógal nga fecc xoolal bandi yëpp a ngi ni caaxaankat yi ñi ay jullit lañ waaye jullit yu bandi lañ di naan sàngara déglu musique njaaloo xoolal ñëw rab yow waaw lii lan la ni yow gis ngeen yére bi nga sol lii lan la est-ce que sa jaamu yàlla ja nga pare nga jaamu yàlla ah waaye et puis kaala yi mooy lan yow yow affaire julli moo la fi indi ma indi fi pour nga noosal gan yi naan julli rabia na tekk di ko déglu waaye loo leble woon loolu lay lay fay góor gi rabia la mu leble woon góor ga moom lañ koy fay tey ndax moo ne woon nguur ga na naan moom it tey foog ñu naan loo ko loo leble rek kamaatu diinutu daan gis nga waa moom day naan daane Rabia naanal. ishrabi. naanal. qultu lak naanal. ishrabi. yoon la ko waxoon dañ ko wax Rabia daal di jël kaas bi moom amagul yooyu maqaama mu daal di këpp sàngara si ndeysaan waaye jàmm jeex na jàmm jeex na mbokk yi. mu ngoog jigéen saa yoo bëggee baax jafe-jafe ñëw na coono ñëw yar yi commencé na dóor yi commencé na gis ngeen mbugal mi lii la yàlla naan wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid yaa ñu koy dóor mu naan yàlla màgg mbokk yi Rabia tey lañ ko waroon dóor wala démb lañ ko waroon dóor Rabia ba mu nekkee ci mbon caaxaan di jàpp naa ne foofu lañ ko waroon dóor waaye xool leen tey Rabia di jaamu yàlla ñëpp di dóor waxuma la a ji rek waaye waa koñ bi sax naan seytaane la dafay bëgg indi diina ju bees ay maamam di def yaramu neen di def bopp neen moom mu ñëw naan day muuru tey li gën a ruslu ci Sénégal sooy wax muuraayu ñu naan muuraayu aada ay naar la te muur nekk aaya alquran yàlla subhanahu wa taala woo yonent ne ko yaa ayyuhan nabi qul li wa banaatika wa nisaa'il mu'miniin yudniina alayhinna min jalaabiibihinna zaalika adnaa an yu'rafna falaa yu'zayna wa kaana allahu waxal jigéen ñi waxal say doomi jigéen waxal jigéen ñi jullit ñi nañu sàng seen yaram xoolal ñëpp ngi dóor lan la Rabia def nen day jaamu yàlla dóor nañ ba sonn daat koy yeew yàlla jàngal nañ ci suratul buruuj ne nit ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla dara gaay bañawuñ leen lenn lu dul imaan rek wa ma naqamu minhum illa an la billahi al azizul hamid xoolal Rabia dóoriñ ko dóor dóor yi méttee mit dóor nañ ko ba mënatul taxawul dóor nañ ko mënatul jooy dóor nañ ko ba mënatul yuuxu allahu akbar mi ngi nii lan la def est ce que nee na damay jaamu yàlla nekk xale bu jigéen bëgg a jaamu yàlla ñu ne doo fi jaamoo yàlla allahu akbar doo ko fi defee ñun duñ ko def waaye doo ko def walal am na mbir mi ñu mu naqari waaye mbir mi am na ñu mu neex walal yi moom neex na ko yemuñ rek ci dóor ko waaye yóbbu nañ ko ba ci àll bi gas bu mu ko daal di koy suul daal di koy weer ci naaj bi bàyyi leen ko ni bu deewul ngeen tëj ko kaso nee na ko fii ngay nekk ci suufu naaj bi ba nga dee boo deewul ñu tëj la xoolal jël suuf xëpp kanam gi ba mu takk rëpp daal ko fi bàyyi dem <laughs> xoolal lii ñu ñeen dañ ko fi bàyyi bu dundee ñu tëj ko mi ngi nii xoolal mbugal yi metti yi waaw islaam njëg la mbokk yi ku ko bëgg doo waxaale mbir mi akara la wala fi nee nañ ku bëgg akara da ngay ñeme kaani ku bëgg dugg àjjana da jaamu yàlla ndax yàlla nee na inna allah astara min al muminin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna aljanna yàlla da koy jaay waaw yonent bi nee na ala inna silaat allahi gaaliya marchandise yàlla dafa seer ñu ne yonent bi lan mooy marchandise yàlla mu ne ala inna silaat allahi hiya aljanna marchandise yàlla mooy aljanna mbokk yi taabiyaa ngi nii ñu tëj ci kaso ñetti fa na ngi nii lekkul naanu mënatul taxaw ubbi nañ kaso bi indi lañ ko ndox mu naan may leen ma maa ngi dee may leen ma ndeysaan xoolal ñu ne mu daal di joxe ne waa ji na ko jox allahu akbar may leen ma ndox maa ngi dee alma may leen ma ndox yonent bi nee na benn waaye dafa may xaj mu dugg ndox xaj bi dugg xaj bi naan waa ji dugg aljanna xoolal ñii jullit bëgg ndox ñu jël asib xëpp ko ci kanamam asib lañ ko sotti mu daal di laal kanam gi rek lépp daal di rocceeku daal di lakk ñuul kukk daal di yàqu gis ngeen nu mu rocceekoo allahu akbar yonent bi nee na waaja dafa maroon naan mu may mu maan naan ba pare mu gis xaj bi mar naan mu may xaj bi yonent bi nee na yàlla baal ko Rabia yëkkati na yàlla loxoom nee na ko yaa rab yaa rab yow sama borom waaw jullit bu amee jafe-jafe dafay woo yàlla waaw waaw yàlla ngay woo am man yu jiibul mutatarra isa daa ana kan mooy wuyu ku am jafe-jafe ku yàlla jullit bu amee jafe-jafe day woo yàlla yàlla soriwul isa saalaka ibaadi anni bu la jaam ñi laajee yàlla fa la nekk yàlla nee na damaa jege ku ma woo ma wuyu la waaye am problème di woo keneen keneen koo woo du la wuyu yaa rab ku am jafe-jafe woowal yàlla rab ngay woo yàlla yaa rab yaa rabbal alamin yow borom bindeef yaa arhamar rahimin yow yaay yërëmee yaa dàq yërëm ñu yërëm yàlla nga jubal ci yoon bi jub rab yàlla ngaa mun a ci miir ba ci kaso bañ ko tëj ma ngay wàcc ndeysaan waaye jallat qudratullah fawqa kulli qudratin qudratullah ku ab kànk tan ture yàlla la ëpp kàttan miir bala yàlla bënn génneel ko ci ndox allahu akbar gis ngeen mu yéemu mu daal di tiit daal waaru daal naan raxas kanamam yëpp daal wér këng mu daal naan ba màndi yaram bi lakkoon lépp daal leer naññ naññ naññ naññ naññ daal a rafet na mu rafete woon lu mu def muy sant yàlla yëkkati yàlla ay loxoom encore ashkuruka ya rab yàlla maa ngi lay sant ashkuruka ya rab waaw waaw wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis wa in shakartum la yi dan na azidannakum bu ngeen ma sante ma dolli leen sant na yàlla subhaanahu wa taala ci xéewal yi ku am xéewal da sant yàlla waaye tey da gis ku am xéewal ñu la liggéeyu ndeyam la lan la ndeyam liggéeyu tuus muy sant santal yàlla yàlla dong lañ war a sant waruñu sant kenn ku yàlla raabee sa jàkka ja tey mooy ñeenteelu fan lekkul naanul indil nañ ko lekk waaye ñu ñëw fekk muy julli xoolal julli gi ni mu dalee xoolal rukkoo yi ni mu matee xoolal siggi bi ni mu dalee xool leen si jóot bi lii mooy julli waaye këpp këppal këpp këppal baaxul gis ngeen sottil nañ ko lekk giñ ko indil lan lañ ko indil xool leen yeewu allahu akbar allahu akbar mbokk yi xool leen liñ indil Rabia waaye sëlmalul julleem ndax imaanam subhaanahu wa gëm gi mu gëm yàlla yëf yi daan nay langaamu ci baat bi di ko waaja a lemu di ko waaja modd di waaj damm baat bi raabe xool leen ko ma nga ca taaya ma ngay taaya taaya na ba pare ma ngay sëlmal yëf yaa ngay dajaloo geen gaa ngay bopp bi ak bopp bi xoolal sëlmal na ndeyjoor asalaamaaleykum wa rahmatullah sëlmal na càmmoñ asalaamaaleykum gis ngeen sëlmal bi ni mu dalee ni muy julli daan na yëkkati yàllaay loxoom yàlla moo ne bu ngeen amee jafe-jafe woo leen ma mu ngi lay ñaan ma yow yàlla lii ñu ma teg bu la neexee bàyyil mu dem bu fekkee naqari na la yàlla nga ma ko dindil yow borom bi subhaanahu wa yow yàlla yow dong yaa ma mën a dindil lii yàlla daal di koy soppil mu nekk benn caq fleur ci daal di ci baatam allahu akbar mi ngi nii buur yàlla subhaanahu wa taala moo ne ku am jafe-jafe yàlla génn ci wa man yattaqillaa yaj'al lahu maxrajan wa yarzuquhu min haysu laa yaxtasib yàllaa ko wax te du deñ li yàlla wax mooy dëgg waa ji ko doon rek gént ñu koy ndulli xoj ko di ko waaj a rey di ko dóor dóor yi métti naan ko bàyyi li ngay def xale bi bàyyi li ngay def xale bi rek mu daal di tiit yee jabar ji jarira jarira jabar ji daal di yeew ne ko lan la lan la mu ne ko xoolal kër gi ni mel ndeke loolu kat benn bi a ko waral raabi a nekk ci biir kaso bi di jàng alquran yàlla daa di wàcc lumière ci biir kër ci biir kaso bi ne ne ko xoolal kër gi xoolal lii lii de du jur jàmm lii de du jàmm lii lan la lii lan la mu daal di jóg daal di dajeeg waa ji gaata kaso ubbi buntu bi rek kooku ne ko eh eh xam nga lu xew kaay garde sa kaso man mi kat yu lii kaay kaay kaay kaay nga ut ko gardeel kaay xool xale bu jigéen bi kanam gaa ngi leer mel na jàng man ni lan la xaw ma ko ñëwal xool utal ko la gardeel sa kaso nag man démissionné naa de ñëwal ñëwal ñëwal ñu ñëw gis ngeen allahu akbar mu ngoog waaw waaw lii mooy leeral rabbana atamim lana nuurana faghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir mu ngoog leer gaa ngoog allahu tobsel indiwu ko akañe indiwu ko Poclair indiwu ko lii lu ko indi mooy njàpp ak bëgg yàlla subhaanahu wa taala gis ngeen mu ngi nii gis ngeen lumière bi ni muy jollee ci kanam gu ndaw sii gaa yi daan nañuy yërndu daal di ubbi buntu kaso bi daal di sukk ci kanamam daan ne yàlla jéggal xool ngeen mu ngi nii allahu akbar yaa rab tabaraka wa taala yaa rabbal alamin ndeysaan allah xoolal waa ji moom it tuub na xam maa da ngay tuub yëkkati na yàllaay ndax wet gi moom gis bukk nee na allahu akbar yàlla yaa màgg allahu akbar yàlla yaa màgg allahu akbar yàlla yaa màgg nee na ko laa maabuda siwaa kenn warul jaamu ku dul kooku nee na ko Rabia baal ma nee na ko tooñoo ma baal ma yow Rabia nee na xoolal Rabia nee na ko tooñoo ma yàlla nga tooñ inna allah gafur rahim jéggalul yàlla yàlla baal ñu xoolal leer gi mbokk yi nee ko yàlla muy jéggale muy yërëme jéggalul yàlla nee na ko wóor na borom asamaan bis ni tey ma ni tuub naa ba sell génn naa ci caaxaan nee na ko yàlla dong mooy jubalaate ci siraatal mustaqim ñaanal yàlla mu jubal la ginnaaw bu mu ma jubalee allahu akbar léegi Rabia daan nay am liberté am Amath daan na koy ubbil buntu kër gi Rabia daan nay génn léegi nag nee na day dem ci gaa yu baax yi jaamu ji yàlla ndax kat wal muminuuna wal muminaat baaduhum awliyaa u baad góor ñu baax ñi gëm yàlla ak jigéen ñi baax ñi gëm yàlla ñoo war a ànd montre yu baax yi war a bokk heure mënoo gis yàlla nee na innal muslimina wal muslimaat ñi gëm yàlla ñu jigéen ak ñi gëm yàlla ñu góor wal muminina wal muminaat ñi gëm yàlla ñu góor ñi gëm yàlla ñu jigéen yàlla subhaanahu wa taala saa yu limee góor gu baax day teg jigéen ju baax ci wetam ndeysaan Rabia génn na mu nga jëm ca jàkka ja daje naa maamam bi ndeysaan mu yénte ak moom ne na ko yow sama sët ñëwal yow sama doom ñëwal fu mu ko jëmee mu ngi koy yóbbu waaye dëkk bi am أين رابعة؟ mënuñoo nangu ne Rabia dafa tuur. la adri ana Rabia ana Rabia mu ne gisuma ko gisuma ko. waa ji ne ku ko am dinaa la fay téeméeri junni. seetal ma ko fu ngeen mën fu mu mënta nekk fu ngeen xam ne fa la nekk dugg leen fa ngeen génneel ma ko. ndeysaan ndek Rabia ma nga ca jàkka ja ma ngay déglu alquran ma ngay julli gis ngeen gaa yu baax yaa ngi nii ndeysaan ñoom yàlla rek moo leen saf ak téere yàlla bi. ala inna awliya allah. laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun wallaay aaya bi buñ ko déggoon kon suñu problème yi dina jeex xaritu yàlla yi duñu am jafe-jafe ñu am naqar ñu am dara ndeysaan ñu ne yàlla ñan ñooy sa xarit mu ne allazina amanu wa kaanu yattaquun ñi gëm yàlla te ragal ko ñooy xaritu yàlla allazina amanu wa kaanu yattaquun yàlla yàlla boole ci ay xaritam daa bi yaa ngi nii ba nga ca jàkk ja toog di déglu tafsir gaa yaa ngi koy wër ndax nee nañ gis dinañ la téeméeri junni ñi ngi yërndu di xool ndax am na ci dëkk bi gaa yoo xam ne gëmuñu ne Rabia dafa tuub ñu ngi nii di ko seet Rabia ngi nii te yàlla bi mu nee sama xarit yi mooy ñi nga xam ne ñoo ma gëm te ragal ma ah, am na ñoo xamante ne ndeysaan yàlla dafa dañu yaakaar ne yàlla day wax yàlla ne laa tabdila li kalimatillah loolu wax naa ko ba pare kenn dootu ko soppi allahu akbar wa huwa al azizul yàlla not ci nguuram te yàlla xereñ ngoog si leen aaya biñ jàngal raabi alaa inna awliya allah laa xawfun alayhim wa laa hum yaxzanuun loolu su ko junni déggee waratul tiit waratul ragal karwaas waratul ragal kaso waratul ragal kënu wala waa ji moo ne ku gis raabi dina la fay téeméeri junni mi ngi nii di compter xaalis kii ne man gis naa ko kii ñëw ne man gis naa ko kii ñëpp ne nañ ñu ngi koy feeñal raabi a ngi ni toog di jàng alxuraan waa ji di ñëw dafa ne xale bi xaalis la gëm ñëw fekk sotti ci kaabil ko li yaa ko moom benn mbuus ñaari mbuus a ngi nii lii tey bu ko ko joxoon ab xale bu jigéen ci Sénégal xoolal ñetti mbuus allahu akbar fii nga xam ne xale bu jigéen boo jëndal sandis rek yaa ko moom da lay fanaane waxuma la nag boo ko jëndalee reer allahu akbar ne na ko man gëmuma xaalis yàlla laa gëm yàlla rek allahu wahdahu yàlla kese xoolal waa ngi di ko baab naan ko Rabia xoolal man multimilliardaire laa topp ma ma gàtte la Rabia ne ko ki ma topp moo la gën a nekk multimilliardaire ndax mooy yàlla mu a ko gis nga yow ban yoon nga neexaat ah, ñu wóor na yàlla yaa ngi nii ah waaye yow bàyyi caaxaan yi génnal ci yi wóor na yàlla boo ci génnul dinaa la rey te dinaa yàq sa kër gi waaw yooyu ay caaxaan nga xoolal waa ji gis nga rek xëcc ko rek sànni fële rek jël jël kaamil ñu xottate ko allahu akbar ñi ay njaalookat lañ xoolal ñu nga yàq kër ga mate na kaamil ba yàqate na ko ma ngay ñaax waa dëkk ba naan leen Rabia day njaaloo njaalookat la dañ ko war a rey waaw ñu ngi nii di fexeel suñuy doom fexe nañ ba dëkk bi yi amatul nit simb yi amatul nit fóoral yi amatul nit ñu ngi nii léegi daal ñoom dañoo bëgg rek nit ñu nekk fi muuru di jàng alxuraan loolu nag moom na ngeen dëkk bi kon xumu xumu dootu fi am waa ji lool lay wax allahu akbar xoola waa ji lu muy wax ah ndax nangu ngeen loolu waa dëkk bi ne déedéet nangu wuñu loolu dëkk bi dafa war a waaw moo gën rek mu ne tekk tekkaaral mel na nit nekku fi waaw allahu akbar kii moom ma ngay daw di ko waxi Rabia pour Rabia nëbbatu pour mu nëbbatu dañ ko nar a rey allahu akbar kii Rabia moo ko waar ba mu muuru mu ngi ñëw ne ko waa dëkk baa ngi ñëw dañ laa fas yéene rey jógal jógal dañu lay rey Rabia faale wu ko Rabia ngi jàpp baag tudd tur yàlla subhanahu wa taala xoolal keneen a ngi ca beneen dëkk ma ngay ñaax waa dëkk ba naan leen ndax da ngeen di bàyyi Rabia ak Cheikh Sawbaan di nekk ci dëkk bi di muur xale yu jigéen yi di julliloo xale yu góor yi di jàngaloo xale yu jigéen yi ak xale yu góor yi alquran di leen def lu baax ah su ko defee ñun suñu soraano yi day tas suñu xumb xumb yi day tas ah gaa yaa ngi ñëw jóg leen jóg leen yëngatu leen leen ndax da di taxaw rek bàyyi ñaar ñii ñu nekk ci dëkk bi di ko yàq nañ sànni ay xeer ba ñu dee taxarraku yëngatu leen allahu akbar waa dëkk ba yëngatu waa dëkk ba daw nañ ña ngay dem ca jàkka ja di génn ci Seex Sawbaan ak Rabia pour lan pour rey leen ndax nee nañ ñooñu dañu yàq dëkk ñu ngi ni di daw ña ngay dem ca jàkka ja di leen génn ji Rabia moom am na kóolute ci boromam subhaanahu wa taala ndax yàlla moo ne ko may aar ñi gëm yàlla inna allaha yudaafi anil mu'minin moom gëm na loolu nee na ko yàlla yow yaa yaay sëve yaay borom kattan yaay aar ku la neex yow yàlla maa ngi lay ñaan nga dugal ma tey ci sa waa dëkk bi yegg si nañ ndeysaan xoolal nee nañ moom am njambar bu jigéen la rek bokk ci dafay jaaroon rek génn leen ko mu mbokk ci ñaar ñi ñooy mbir mi ponkal yaa ngi nii maa leen gis waa ji di leen fenal nee na da acca ñaar ñii la acca jàpp leen ndeysaan ñu jàpp góor gi Cheikh Sawbaan génne jàpp Rabia bu max ñu ne kii moom bokk ci da nga leen di toroxal xoolal góor gu màgget gi ni ko gaa yi def waaye maa ngi leen di fàttali ni ñii ñi koy def ni ay jullit lañ dañoo kàccoore rek saay saay bandi ñu ngi nii jàpp nañ góor gi ndeysaan tingoom ko dóor ko ci giri jàkka ji daal jàpp Rabia moom it dóor ko ci beneen giri bi daal leen taxawloo ndeysaan for ay xeer na aqimu haddallah alayhim ayuha nnaas yéen nit ñi dóor leen leen ba dee ndeysaan góor gi ñëw na ci Rabia ne ko nañu muñ inna allah ma sabirin ne ko bàyyi maa ngi rek yàlla dina ma àtteeg ñoom commencé nañ da nga leen di sànni xeer da leen di dóor ndeysaan xeer yaa ngi leen di dal da leen di xaañ ñuy dóor dóor ba caag ñu ne xam ngeen lan la xeer laalul Rabia de xeer dalu ko ah xeer yi na ko kay ñu ne noonu dalu ko werante am ñu ne dal na ñu ne dalu ko ah. loolu dalu ko dara dalu ko waaw tàppet yëpp teg seen xeer commencé jàngal xuraan suuf ma ngay mu naan yàlla yaay aar yàlla yàlla ma aar benn waaye ne sànnil ñu ne ko sànnil yow sànnil yow yaa sànnil ne allahu akbar gis ngeen rabia allahu akbar nee na ko yaa rab rek mu sànn mu xacc rek yàlla wañ loxo bi xeer bi kale ci lu yuuxu wuyaayu tey ma dee wuy tey ma dee laa ilaaha illaa tey ma dee tey ma dee tey ma dee gis ngeen xeer bi kole ci loxo bi ah saw Sawbaan nee na yow yàlla ma aazamaka yaa rab yàlla dara gënu laa màgg xeer bi kole ci loxo bi yàlla wañ ko ba mu tëdd jaaxaan sukk ci suuf tey ah, gis ngeen mënatul jóg da raam di watatu di daw allahu akbar yàlla yaa màgg yàlla yaay wane sa kàttan ci jamono ju nekk allahu akbar nee na Rabia baal ma ñeneen ñi moom tasaaroo ñëpp a ngay daw bi ñu gisee lii ah, Rabia ñaanal yàlla yàlla baal ma maa ngi dee sama loxo baa ngi damm xoolal Rabia ni mu baaxee kii li ko def lu bon mu yëkkati yàllaay loo ne yàlla baalal kii yàlla kii miskiin la bul ko topp yow yàlla yal na nga ko yërëm yàlla bul topp kii ci melokaan yi mu mel yow yàlla jéggal ko yërëm ko allah nee na ko waaw dollil xaw na tane ñaanaatal tuuti ah. affaire baa ngi xaw a sedd ñëpp daw nañ raabaa ngay ñaanaat pour yàlla baal waa ji allahu akbar mbokk yi gis ngeen nit ku baax moom day baale rek jamono ju nekk gis ngeen yonent bi alayhi salaatu keroog ba ko waa Màkka génnee dóor ko dóor yu métti waaye keroog ba mu amee doole ba am kàttan ba mu egsi ci ñoom lan la wax maza tazunnuna anni faa'ilun bikum lan ngeen foog tey laa leen di def ñu ne ko anta axun karim wa ibnu axin karim mu ne isabu fa antum tulaqaa dem leen baal raabia ngi nii di aji màkk ànd ak Seex Sawbaan ngay dem ca Kaaba ga waaye ñoom ba ñuy aji dañoo doxoon ñi dañoo aji woon ngir yàlla aji ñu woon ngir bokk ci association àllaaji yi aji yu ajaratu yi su guddee dañuy julli su bëccëgee ñuy dox te dañ ci boole woor su guddee gis nga julli gi ni mu dale allahu akbar lii mooy julli julli taxaw gi day mat julli rukoo bi day mat julli sujjóot gi day mat ñu ngi nii su bëccëgee ñuy dox ba ndek booleeg woor di julli seen waxtu yu juróom su guddee ñuy naafila ndeysaan ñu ni allahu akbar ñi dañu aji woon ngir yàlla waaw tey nag da gis allaaji boo xam ne ana allaaji dem na super ndaje ana allaaji ma nga cosaan ana allaaji ah ma nga ma nga làmb ja kooku du allaaji kooku alahaaju la neen mbokk yi ñu ngi nii di jaamu yàlla subhaanahu wa taala ñu ngi nii dox ci xeer yi fuñ jëm di aji néegu yàlla bu tedd bi di aji kaaba gi aji nañ ba ñëw rabia mi ngi nii daa di tabax benn néeg ca àll ba néegum ñax la daa di samp ci àll ba di fa jaamu yàlla guddi gi daana julli junni rakk mi ngi nii am njaganaay yi benn xeer la benn la derlaam ndeysaan bu nelawee tuuti daa di jóg naa fi la guddi gi lépp ba mu jeex tàkk yàlla subhaanahu wa taala dagg na gaañu baax ñi la la leen tàgge kaanu qalilan min al-layli maa yahja'uun guddi tuuti lañ daan nelaw waa ji dégg raabiyaa ngi ci àll ba rek yor na alal ju bëri waa ji ñëw ne da koy rey raabiyaa ngi naafila ba toog nekk ci maninam di tudd yàlla subhaanahu wa taala di ko bàkk di ko kañ gis ngeen waa ji di yërndu ba gis raabiyaa position bi mu toogee mu daal di jaar ci beneen bunt ba pour lan pour jékki ko ginnaaw gis nga yow rek ubbi bunt bi ndànk daal di yor paakaam mu ngoog yow rek daal di xàcc ne day jam ndeysaan allahu akbar mu ab agresseur bu ponkal ñu ngi ni fekk rabia ndeysaan ma nga tudd yàlla ba ronga ñi di tuuru waa ji xàcc rek yàlla wañ loxo bi moom it ko la ci paaka waaw waa ji nekk ci ginnaaw loxo bay waaj a damm mu rusa yuuxu mi ngi nii gis ngeen ko mu ngoog rabia tudd yàlla bay jom waa ji moom ma nga ca ginnaaw moom it di bëgg a dee waaye ñëwuta yuuxu am na kersa am na gàcce loxo ba kale na mu daal di ne butt daal di daanu ci kanamu rabia gis ngeen allahu akbar ma aazamaka ya rab daw na xolal daw na dem bokk bi ci benn bant rabia moom xolal ñaan na ba pare dafa ne gan laam def assalaamu aleykum dafa ne gan la allahu akbar nee na ko salaamun aleykum yan na nga am jàmm xolal fu mu jëm day dem indi ji meew pour way pour may waaji mu naan dafa ne gan la bu jógee ci àll ba ndeysaan xolal allahu akbar ndeke waaji ab agresseur la nee na ko mbokk mi lii day bu fekkee ne da nga jóge ci yoon bi lii day meew la ak lekk mu ko man sàcc la agresseur la woon damaa ñëwoon pour rey la mu ko lu ba ma dara mu ne ko damaa dégg ci àll ba ñu ne yow ku yor ku bëri alal ma alal ju ñëw pour rey la pour jël ko mu ne ko alal jooju séddale naa ko miskin yi man du ma yor alal du ma fi denc dara lu ma am rek dama koy séddale miskin yi nee na ko xanaa déggoo yonent bi li mu wax na laysa bokkul ci ñun man kaana jaaya man man kaana jaaruhu jaay képp koo xamante ni dëkkandoom dafa nekk ci wetam xiif yonent bi ne na yow bokkul ci ñun allahu akbar ne ne ko man rus naa lekk sama dëkkandoo xiif allahu akbar ku denc sa dépense suba sa dëkkandoo nekk sa wet na bokkul ci ñun ne na ko man du ma denc alal fii gis miskin yi xiif et puis yow lii ngay liggéey nii du métier nekk ci àll bi rek di agressé nit ñi di jël seen alal amoo métier nekk ci lëndëm yi kuy dem jàkk fajar nga koj ko bëgg nekk ci ah tappaati oto yi kër yi yàqu yi ku la romb rek nga ne ko tuy jël li mu yor loolu du métier tuubal tuubal nga dellu ci yàlla soo tuubee yàlla may la alal nga liggéey mu ne ko Rabia bëgg naa tuub wan ma nu ñuy tuubee damaa bëgg a tuub Rabia wan ma yoonu yàlla bi ma jaar ci dimbali ma dimbali ma ma tuub Rabia ngay tuub Rabia neen ko soo bëggee tuub su ma waxee waxal Rabia nga koy jàngal lu ñuy tuubee أشهد أن وأجعلني توب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله waaji tuub na ci kanamu Rabia ndeysaan gis ngeen Rabia nii la mujj nekk ni muy tuubloo ay góor noonu lay tuubloo ay jigéen nekk jaamukatu yàlla sellal tuubam gis ngeen mi ngi nii ba benn buur bu baax daal di koy dégg daal di koy yónnee benn délégation bu mag a mag a mag a mag a mag ba ñuy dem yor nañ benn maal benn waxande def ci xaalis def ci or ne ci nit dina ko terale mbokkam ñu daal di ko ci def ngir may ko Rabia Rabia ne leen asalaamaaleykum yéen a ñan lu ngeen bëgg. ismi Ziyad ibnu Tahir. nee na ko man maay Ziyad ibnu Tahir. man maay buuru mu ne ko su ngeen bëggee ma taral leen ma indi leen ndox ngeen naan mu ne ko Rabia damaa dégg lu baax li ngay def dama laa indi lii lépp. di teraanga nga teraanga a ginnaaw ba ma déggee lu baax li ngay def jaamu yàlla gi nga nekkee ak ni nga bëggee yàlla nee na ko ma sant yàlla ci li ma lay jox tey lii xéewal gii yow dëgg-dëgg ku baax nga ku tabe nga ku ragal yàlla lépp lu ma am man buuru dëkk bii dinaa la ko jox ngir nga ñaanal na yàlla yàlla baal ma mu ngoog nee na ko mi ngi nii Rabia ne ko déedéet man ci yoonu yàlla laa jaar saalal ji nga ma bëgg a indi la maa bëgg génn ci yoonu yàlla ma ni bu fekkee dangaa bëgg a am tiyaaba joxal miskin yi ñu lekk tey da gis doomu aadama boo xam ne li mu yor ci alal kenn xamul nu mu toll romb ay miskin yoo xam ne du ñu añ duñu reer duñu ndékki romb ñoo xamante ne amuñu dara nga gàddu sa alal tukki ay tukki yu sore sore sori naan joxe ji sooy joxee koo jox boo génne sa buntu kër bu fekkee yàlla rek a tax nga jóg ngay joxe soo ubbee sa buntu kër di nga gis koo jox bu fekkee yàlla rek moo la animé soo ubbee sa buntu kër di nga gis mbokk jullit moo dimbali waaye tey nanu yàlla baal nanu yàlla jégal gis nga Rabia nanguwul jël lii nee buur bi na ko delloo na dem saraxe ji ko na ko jox miskin yi waaye lu yéeme mooy mbokk yi Rabia niñ ko daan wëree démb ci cosaan yi ci fuural yi ci xumbal yi ci daasin yi muy cëppi-cëppi di tëb di fecc tey noonu lañ koy wëree muy jàngale diine tey noonu lañ koy wëree muy jàngale lislaam di leeral yoonu yàlla mu yoonu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis nga ñii ci moom lañ jëm mu leen di leeralal diine di leen wammat yoonu yàlla subhaanahu wa taala mi ngi nii moom rabiatul adawi ñëpp ci moom lañ jëm allahu akbar kon li muy tekki rek mooy doomu aadama saa yu góorgóorloo saa yu jaare ci yoon yàlla te caaxaanul yàlla moo wax dëgg yàlla nee na wallazina jaahadu la yen na nahdiyannahum sublanaa képp ku góorgóorlu ci sama yoon bi yàlla nee na dinaa la jubal dinaa la jàppale kon Rabia ba mu tuubee dëggu jaar ci yoon bi te tuubantuwul mu dëggu boole njàng ak jaamu yàlla koor ak naafile guddi wallaahi raw na ay jigéeni maas mu ngi nii xool leen ko tey daan ñëw toog bayna zuwaariha ñëpp kaana xamaad bokkoon na ci xamaad ginnaaw ba mu rëccoo moom xamaad moomu nga xam ne doon na def raabiya lu bon asan moom xam ngeen ne rey nañ ko amaata ci mujjoon ñoom ñëpp daan nañ mujj toog raabiya di mu ngi nii ci mooy xamaad mu gëm yàlla raabiya mu bëgg borom ya subhaanahu wa taala raabiya ñëw na na asan xamaad ñëw na tey ci kaw na mu raabiya daa toog ne ko indi naa valise bu rëy bii sama alal la dama ko xaaj lenn def naa ko fi sabilillah lenn damaa ñëwoon pour jox la ko can pour takk la denc la nga nekk sama soxna waaw léegi nag ma ñëwoon pour waxtaan ci ak yow mu ne ko li nga joxe yal na li ci yàlla defal tiyaaba waaw Rabia wa amma sëy gi nga wax suñu diggante nag loolu mënut a nekk ndax man daal dama bëgg nga bàyyi ma rek ma jaamu yàlla mu ne ko waa jox ma sa loxo ma barkeelu ci mu ne ko déedéet góor ak jigéen du ñu nuyonte allahu akbar loolu day ñun nga xool tey waxuma la góor ak di joxe ay da ngay gis ku fóon jabaru jàmbur mu ngoog ba pare di ko tiitaru allahu akbar mbokk yi raabi a ngi nii di jàngal jullit yi di leen leeralal yoonu yonent yàlla muhammad di leen jàngal diine di leen dugal bëgg yàlla bëgg borom bi tabaaraka wa taala seen xol sant leen yàlla bëgg leen yàlla yàlla bind lépp yàlla moo jubale ci yoonu siraatal mustaqim yow yàlla ñu ngi lay ñaan nga jubal ñu ci siraatal mustaqim yaa rabbal alamin yow borom bindeef. amiin. gars yi daan nañuy nangu ñaan ñoom ñëpp. المؤمنون اي yéen ñi gëm yàlla يا إخوتي في yéen samay mbokk ci yàlla توبوا إلى الله tuub leen dellu ci yàlla واطلبوا منه الشفاعة والرضا sàkku leen ci moom xéewalu àdduna ak àllaaxira képp ku ñëw ci yow di sàkku ci yow ndimbal soo sàng jullit képp suturaal jullit yàlla dina la suturaal àllaaxira képp ku bàyyi sa dëkkandoo mu ngi xiif fekk xam nga ko yow tooñkan nga allahu akbar mooy te ni ku leen nay ab julit du nay yéen jaamu yàlla yi bu leen iñaan ndax ku iñaan doo nekk sang alxasuudu laa yasuud nekk leen ay julit bu leen fen julit du fen bu leen seede fen bu leen fecc ci kóllëre gi ngeen wax ak yàlla subhaanahu wa taala respecté leen ñeneen ñi bu leen jeng di dem ci fenkat yeeg tooñkat yi تكلموا بالكلام dee leen wax wax ju baax أحبوا بعضكم bëggante leen seen biir jullit na bëgg mbokk jullitam يغتب بعضكم bàyyi leen jëw jullit jëw mbokk ولا jullitam تفتنوا بعضكم allah ak bu leen fitnaal seen i mbokk jullit تعتدوا bu la wala taatadu bu leen jalgati bu leen jéggi dayoo هو حرام عند nee loolu araam na ci yàlla subhaanahu wa taala سامحوا بعضكم baalante leen seen biir الله يغفر yàlla baal leen ku bëgg ku la baal yaa da ngay bale irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama yërëm leen ci suuf waa asamaan yërëm leen allahu akbar xool leen wax ji Rabia génn ci gémmiñam lii tey ay kilifa ay sang ay borom xam-xam ñoo ko waroon génne ñi naan jigéen moom diineem nangam nangam mu ngi nii jigéen dafa war a jàng diine comme ni ko góor war a jàngee amul fenn ñu jàng ci diine ne jigéen warul jàng abadan jigéen dafa war a jàng yaay ay sa mokkaloon na ci xadis 2210 xadis yonent bi daana wax xadis ba gaa yaa ngi koy jam même bu fekkee ne ñu ngi koy jamit am nañu koy koy yonent bi doon wax ne xuzu nisfa diinakum min haazihil xumayra jël leen seen genn wàllu diine ci ndaw soxnaam si te mooy yaay Aïcha yéen jaami yàlla yi yow sama borom ñu ngi lay sant allahu akbar ñu ngi lay sant yow suñu borom ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay bàkk ndax yow yàlla yaa ñu baaxe diine lislaam yaa ñu baaxe alquran bi muy téere bu tedd bu màgg bi yaa ñu baaxe nga yónni ñu yonent yàlla muhammad yow yàlla yàlla nga sotti say xéewal ak say yërmande ci sunu yonent bi muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow yàlla ñu ngi seede na yow dong lañu war a jaamu waruñu jaamu kenn ku dul yow ñu ngi seede ne yonent yàlla muhammad mooy wane ni ñuy jaamoo yàlla waaye ci jamono ju ci at ci at mu betteel rek at at mu jege ci mbetteel ay yéeféer daal di ñëw dugg ci dëkk jullit ñi di ko nangu ñu daal di attaqué jullit ñii di nangu dëkk bi lal moo xew jullit ñëpp daal di daw dem ci Rabia naan Rabia ñaanal ñu yàlla yàlla baal ñu yéeféer yaa ngi rey allahu akbar jullit ñi nekk ay tappet nekk ay ragal gis nga ñëpp a ngi nii di daw lan moo waroon mooy jullit ñi taxaw jël seen i ngànnaay défendre seen i mbokku jullit leen lan la lu xew bu leen ragal xeex ñu ne ko yéeféer yi seen jaas yi dañoo ñëw dañ ñuy rey di balinu di ñuy rey mu ne naka ngeen bàyyee seen i mbokk jullit yéeféer yi di leen néewal doone yéen ngeen nekk ay tàppet daw da ngeen a bañ a dee ci yoonu yàlla da ngeen di bàyyi noon yi ñuy dammatee di rey jigéen ñi xale ndeysaan laaj na leen laaj bu mag bi te mooy laaj bi muy wax alam yaamurukumu diinu wal jihaad bi difaa alam yaamurukumul quraan alam yaamurukumul quraan wa qitaalil a'daa allahu akbar wallaahi balaa alquraan ak diine xanaa sant ñu leen ngeen défendre seen bopp aha kay mu ne ngeen bàyyi seenu kóolute bàyyi seen kattan seen cosaan bàyyi seen pas ngeen daw ñëw fii taxaw di jooy di yuuxu góor yu toll na yéen ah. ayyuhal muslimun rek buur dëkk bi ne yéen jullit yi incha allah nañ dem aar suñu mbokk jullit aar suñu bopp aar suñu diine liggéeyal suñu borom man de maa njëkk dee ci yoonu yàlla ndax dee ci yoonu yàlla aljanna mooy fay. Rabia daan na yëkkatiwaat conscience yi daa di dekkelaat pas-pas si deewoon yi daa di yëgalaat imaan yi gars yi daa di delluwaat ca kër ya jaayantewaat ak seen borom génne seen i ngànnaay dem aar seen i mbokk jullit lii la jamono ju nekk dëgg-dëgg. jullit ñi yàlla subhaanahu wa taala war na leen baaxeeg waa joo xam ne mooy dekkilaat ngëm yàlla yi ndax ngëm yàlla day dee mbokk yi ngëm yàlla day day ruus moo tax yonent bi saa salaam doon wax ne jaddidu imaanakum dee leen beesalaat seen ngëm sahaaba yi ne ko naka la ñuy dekkilaate ngëm mu ne quulu laa ilaha illa dee leen wax laa ilaha illa allah ñaa ngi nii ak seen sàppe daan nañuy sangu yëfër yi ñaari équipe yi daal di daje muy équipe yàlla ak équipe bi ñu ngi nii jullit yaa ngi di wàcc montagne yi di joxe seeni bakkan joxe seeni ruu ci yoonu yàlla subhaanahu wa taala mi ngi nii xam ngeen ne dee ci yoonu yàlla lan mooy fayam ci lislaam rabia ngi ca kër ga ma ngay jàng alquraanul karim di ñaanal gaa yi ngir yàlla subhaanahu wa taala may leen ndam allahu akbar ma nga noonu mi ngi nii ma ngay ñaan yàlla subhaanahu wa taala ma ngay jàngal xuraan di ñaan yàlla jullit ñaa ngay xeex moom ma ngay ñaan ngir yàlla dimbali leen ndax gëm na ne yonent bi dafa ne addu'a huwal ibaada ñaan mooy jaamu yàlla waaye gëm na ne yonent bi moo ne addu'a silaahul mu'min ñaan mooy ngànnaayu jullit jullit ñi buñ doon ñaan xeex bi jeex na ñu ñëw doon tàgg su Rabia doon ko wax gañe nañ ñëw fekk Rabia nekk ci sukkuraat di waaj a génn àdduna gis ngeen kii ko jamee ci xeex allahu akbar nee na nii la jullit ñi xeexee xeex bi daal di jeex jullit ñi gañe am ndam waaye ñëw fekk ñu ko doon wax Rabia naan ko gañe nañ ñu ñëw fekk ndeysaan ndaw si tëdd nekk ci tëraayam bu mujj nekk ci sukuraat tëraay boo xam ne jullit bu ci nekk war nga ko bàyyi xel tëraay boo xam ne jullit dina ko tëdd ñëpp wër la ndeyjoor ak càmmoñ ñëpp wër la say doom say mbokk fekkee jigéen ji la borom këram ak dëkkandoom ñëpp ndeysaan yàlla subhaanahu wa taala ne tëraay bi mooy sa tëraay dootoo tëdd beneen tëraay bi tëraay bi war ñun ñëpp war nañ ko xalaat ku nekk dina fi jaar tëraay bi mooy tëraay boo xam ne malakal mawtu mooy ñëw jël sëru allahu akbar gan goo xam ne bëggul dara loo ko tere la bëggu ko lu dul sëru rek fa kayfa alxaal ida nazala dayf waaw dayful mujtaa maa lahu qiran illa arwaax nee na ko ñëw naa di leen tàgg di la tàggu ñoo naa doon na mu ne ko bu ngeen xamoon li yàlla santaane ci jihaad kon dootu leen teg seen jaas yi man day maa ngi leen di yëgal nii léegi nii man day maa ngi wax baat yi nga xam ne moom la yonent bi digle ku ko wax dugg aljanna maa ngi tudd baatu seede yi ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa fu mu njëkki ak fi mu mujje yal nañu yàlla may mujj gu rafet allahu akbar gis ngeen ko mu ngi nii faatu waaye fii lu yéeme mooy ruux gi day génn ci yaram bi comme ni ni yaram bi mel gis ngeen su fekkoon ne gis ngeen ruux gi ni muy génnee su fekkoon ne tey raabe <clears throat> fii mu nekk nii yére yu bon la sol ay awraam nekk ci biti mu jerefaasu meesu xeesal sol ay likra sol ay jumbat aw daal di dangal noonu la ruux gi di génnee dem ci borom bi tabaaraka wa taala gis ngeen ruux ku bon su génnee du dem ci kaw yàlla sijjin la koy yóbbu amaaraabe comme jullit la woon ku gëm yàlla la woon melokaanam colam lépp baax na yàlla subhaanahu wa taala da koy ruugi daal di ko yóbbu ilayyin gis ngeen ruugi mu ngi noonu di génn ci yaram ngi noonu gis ngeen ko mu gis ngeen ni ko niñ ko waajalee ruugi daal di nekk ruugu baax bu sell gis nga bàyyi na yaram bi ci suuf ma ngay dem ci buur bi tabaaraka wa taala su egsee daal di bàkk yàlla kañ ko màggal ko ñu daal di jël ruugi daal di koy denc ilayyin gis ngeen yaram ruugaa ngi nii di yëg bàyyi nit ci suuf mën nga yéeg dem ci kaw asmaan kon lii moo doon film bi ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu ci tawfiix ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jubant ci suñ dund ñuy woo bépp jullit bu jigéen mu jéem tuub ay bakkaaram jéem a mel ni yàlla subhanahu wa taala ngir ëllëg yàlla subhanahu wa dugal ko jannatul firdaws seen mbokk seen xarit al oustaz Saïd Ly moo leen doon traduiral film bi ñaan yàlla subhanahu wa taala lépp luñ ci am ci yiw innahu wal ghafur rahim ku bëgg a jokkoo ak ñun incha allah mën nga jokkoo ak ñun ci 689 24 91 asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ۖ ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت